bismillahi irrahmani irrahim an muaawiyata radiallahu anhu qaal jëlee nañ ci sayidna muaawiyata yal na ko yàlla gërëm mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama suñu sang mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wax na ne man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diini ku yàlla xéene jàmm daf lay déggloo diine muttafaqun aley xadis juñ dëppoo la buñ ne muttafaqun aley mooy buxaari ak muslim yëpp soloon nañ ko dekete yoo kan jàmm gépp ak jàmm mi ngi ci dégg diine fiqhu la wax nag mooy dégg gu sew nga xam ne dafa xereñe yal nañu ko yàlla defal te dégg gu sew gu xereñe it day ànd jëf yal nañu yàlla yombalal loolu tamit defal ñu ci tawfiq te nangul ñu hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama amin